comme jàmm la lañ wax ne ñi ko ñi ko proposé jàmm lañu ñu nee ne la ñu ut sant yàlla yal jàmm ñëw liñ ci xaw a eh, kii am tuuti lu ñu lu ñu wax mooy victim yi ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ñàkk nañ seen alal ak seeni i mbokk eh, xam nga dañ naan maslaa bu bu dëgër ci dëgg lay tegu su doon suñu sago dañu atte xam ñan ñoo def ñan lañu def ñaan ñoo yàqule kan moo yàq bu ñu réparé ñu réparé ba pare ñu waxtaan baalante ak juboo juboo boobu dafay dafay dafay dëgër loolu moo doon gënal moom la ñu xalaat ne moo doon gën a dëgër mais eh, comme amuñu loolu tamit betee jàmm la ñu woote ñun betee dañu teel si jàmm rek ndaxte am na yoo xam tam buñ ko defee malheureusement du delloo si ñi ñu ñàkk ñi ba pare te continuer ci fitna tamit amul njëriñ parce day tax réew mi gën a am nekk si guute